ci dóor mu dee nit ñi wératuñu nit ñi dëgëratuñu nit ñi ils ne sont plus féconds donc il faut faire très attention parce que da nga fiy rey nit sax te doo ko tey c'est ay xeex ay jékki-jékki dóor nit ay jël mais nit da daan sàcc fii gars yi dóor ko ay birig ba defe ne denn mu jug dem wala ñu këdd ko ay ren gis ba ni kii kenn amatul ci yaakaar mu dem mais nit ñi melatuñu noonu njaab bi koo dóor mu ci say loxo il faut ñu bàyyi dóor ay ah. poulet de ay kokkale sax laay ay kokkale il ñu bàyyi dóor benn bi ci desit mooy nit bu fekkente ne dañ ko teg loxo mhm. ci cadre yoon na ñu xam ne lii war li yoon war a def mooy mhm. yar jikko ji bàyyi fi nit ki waaye bu fekkee rey nga nit ki ba pare yow yareetoo mm-hmm. maanaam ku def délit wala ku def crime buñ ko jàppee nañu ko boole ak ay àqam ak yelleefam mm-hmm. di topp mbir ma comme on parle de police scientifique on parle de preuve gis nga même sax le fait d'entendre une personne dans les pays développés amatul njariñ xam nga lu la policier bi di wax njaab dama lay laaj yëf yi nan la demee mm-hmm. tu as deux options bu la neexee nga wax dëgg su la neexee nga fen parce que fii tout ce qui n'est pas prouvé ne sera pas retenu mais soo waxee dëgg juge bi dina am une bonne opinion de toi il peut être clément au moment de la décision soo fenee tamit juge bi dina am une mauvaise opinion de toi bu waree jël décision am dina saf ci yow mhm. donc police moo war a dem sur le terrain là où se produit produits les faits pour prouver la culpabilité ou la non-culpabilité d'un inculpé mhm. waaye ñu jox ko ay àqam ak yelleefam ak la mu war a àndal mhm. bakkanam nag bu xasee ba rot mhm. kooku yoon amatu ci benn njariñ bu dul loo xam ne ëllëg ci ahkamal xaakimin la ñuy daje mooy le plus juste des juges balaa ñuy àgg foofu deretu doomu aadama li ko wër dafa bari nit koo gis yàlla bind ko da ko booleeg rawxaan yu bari ci malaaka yi ak ci jinne yi te ñooñu munuñu di eere nii moment bi nga xam ne bakkanu nit ki rot na te waxtoom jotul te ñu mel noonu bu nu dajee ci réew mii ça peut exploser c'est-à-dire am na deret yoo xam ne bu commencé di toq di toq di moo xam ci manifestation moo xam ci arrestation moo xam ci lu mën a doon wallaahi mën naa jur musiba boo xam ne ku mhm. jàpp ne mën nga caa mucc ku ne dangaa xamul li xew mhm. kon na ñëpp delloo si seeni xel ñiy jàppe ñii ñuy jàpp ñiy manifester ñii autoriser di tere ñëpp nañ delloo si suñu xel lii ñu bokk muy sunum réew mhm. ñu saytu ko dans la plus belle élégance mooy ñiy gouverner tey gouverner dans un régime démocratique ñoom ñi yàlla jox cër yi ñu respecté seeni statut ñi bëgg loolu ëllëg it bëgg na bëgg nañu falu ñoom it ñu respecté statut boobu ba pare aspiré jëm ci parce que munoo di bëgg dara di fa xëpp mbalit ak di ko saaga ak di ko waxu ñaaw donc on doit respecter les institutions après nag bu nit ki représenté mais si les institutions ont failli à leur mission aussi avant euh, même s'ils ont d'abord par dire il faut que les institutions se respectent ma chère comprendre mm-hmm. ku ne na nga xam liñ la jox nga jox nga doxe gëddug liñ la jox xam nga doxe gëddu liñ la dox mooy nga am ci la juste mesure mm-hmm. pas nga bañ ci user de trop wala nga abuser ci mais quand vous entendez euh, parler de forces occultes de forces euh, qu'est-ce que ça vous inspire ñu bëri dañoo jàpp ne carrément le pouvoir en place daf ko def rek euh, juste euh, voilà pour euh, calmer wala sax tiital li nga xam ne mooy opinion publique bi par rapport aussi voilà à ces. il des il y a enquêtes en cours par rapport à ces choses là. Ah. te man xaw ma ci dara te man de xam nga fi mu ne bàyyi bëgg réer yi sama kër ndànk <laughs> jàpp sama njàmbur xaw ma force occulte xaw ma force spéciale xawma force sombre xawma force claire non lo c'est dara laa ci xam très sincèrement mhm. et eh, je ne me renseigne pas là-dessus pour xam lan la dëgg-dëgg mais on a vu aussi euh, muy mel comme euh, démocratie fii Sénégal wala sa liberté des individus ba le euh, sous le régime du président Macky Sall dafay xaw a tumuranke voilà on emprisonne des gens pour un oui pour un non voilà déjà le professeur Cheikh Oumar Diagne l'histoire